salaamaaleykum mbokk internet SBT Média ñu ngi leen di nuyu di leen di siyaare di leen jox seen wàcc waaye leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen dinaan tey ñu ngi fii nii Grand Médine ah ñëw ak beneen facette ñëw seet si benn champion benn daanaan boo xam ne def na lu nekk ci làmb ñëw seet si ko mais tey ak beneen faset lañ ñëwee mbër ak métier moom lañ ñëwee tey ñu dalal fi benn champion benn daanaan muy Ndongo Lo mbër sa eh, la ah, ñu lay fay waaw maa ngi sant bu baax kay. tey nag dañoo ñëw fii tey seet si la ñu bëgg a sa métier lan la. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur maa ngi nuyu waa Grand Médine bu baax a baax di del di nuyu waa Grand Médine di nuyu waa Parcelles ba 26 surtout waa a ak waa 21. waaw man moom ku nekk ñëpp xam nañu moom mécanicien man mécanicien oto bu ndaw laa woon xam nga amante ji làmb yàqal ma ko mais ba léegi sama métier maa ngi moom mais mécanicien laa quoi. mécanicien oto waaw ci laa yem ba léegi waaw ndax euh, ma seen dafa yaatu xam man oto bu ndaw laa jàng am nañu jàng oto bu mag am nañu jàng ay camion am nañu jàng ay man oto bu ndaw laa jàng. waaw acca noonu la demee ah mbokk internet yi teg leen foofu seen baaraam ñu dugg xool ba xam lan mooy métier ak nan la mënee ndax mën na ko wala fàtte na ko wala fàttewu ko di ngeen ko xool ci kanam tuuti ah acca. Aliou ñu ngi lay nuyu. waaw maa lay sant di la remercier. tey ñu ñëw seet si mbër ak métier mu ne yow yaay patron fii la jàngee métier depuis ñaata at la nekk di def métier bi. waaw fii moom yàgg na fi moom def na fi ay 6 ans ah, yàgg na fi waaw mais booy bu yaru la te wax dëgg yàlla euh, am na yëg-yëg te am na respect tamit parce que tamit li mu def ni tamit lu jafe la su ko neexoon tamit mën na dem defee ko fen atelier yi bëri na fi mais daf ma jox cër respecté ma te yàgg nañu jaar ak moom tamit foo xamante ne nii ci lu baax la quoi waaw mais man maam métier bi ba léegi wala. waaw ah, waaw mi ci métier bi waaw mi ci métier moom ba léegi waaw mi ngi ci métier bi parce que non dëgëru nag parce que lépp lu muy def dana ma tàggu yëglu ma leerlu boobu ma ko toogal mu toog mu nekk demal mu dem te ba ma demee ba ne moom bëgg na làmb gi kat koy daf may wax ñaan heure boo xam ne su jotatee ay 5 heures naa ko muy mën a dem entraînement na ko amul benn problème parce que góor tam da war a am ñaari am benn métier rek. mais moom bi ñëw ñaata la amoon. waaw moom bi mu ñëw nag moom boobu booy la nag waaw dëgërul nag mais jàpp nag ñaata at la am waaw mais nag moom loolu yàgg na quoi moom presque yëpp fii la ko defee daal carrière yëpp fii la ko defee parce que non no non non moom moom. est-ce que daaw ko yónni mu dem ak xaalis bi. non non non mosuma ko yónni nag mu dema ak xaalis lépp lu ma ko yónni su demee jarul loolu day daf may woo téléphone ni ma li nga ma yónni woon de nee ëpp na ëpp kii jarul loolu lii lay jar su ko defee moo waa ji ma wax ak kim kim seekal moo waxal ma ne ko jox ko après dana la jox wala su fekkente ne xaalis dafa ëpp it daf may daf may delluwaat sama waycat waaw moom yi nan la ñuy dundee ci biir atelier waaw ñoom moom dañoo ñëw bokk ndey ak baay xam nga di kaf di ree di waxtaan fii daal moom daara la atelier la boo xam ne dañ fiy jàngale métier dañ lay yaraale waaw. non non non musul nag non non musul changé ni mu meloon daal ni meloon ni meloon démb daal noonu la mel tey waaw. acca lay demee mbër acca ñu doxal. lan ngay wax fans yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. waaw fans yi nga xam ne mooy seetaan maanaam mbër ak métier nit ki même mu nekkul mbër sax da nga war a métier bi nga xam tey ji ëllëg war na mën a jëriñ feneen muy mécanicien bi muy tôlier bi muy électricien bi yëpp a ci yem. góor yàlla bu nekk góor rek juddu fu nga war a juddoo da nga war a am métier lamb du métier lamb genre option la rek bëgg-bëgg boo xamante ji ci lañ ci nekk enquête maam teg ci mu nekk suñu cosaan moo tax ñu bëgg lamb mais lamb du métier. mu làmb tey carrière mbër lu ko yàq dafa yomb prix bi nga contact am problème genou sa carrière dem na ndigg sa carrière dem na kon ñu fonkaat suñu métier gën a jàngaat suñu métier ndax yàqoon dara si entraînement loolu laa wax sama yu ndaw yi nga xamante ne dañoo ne ñoom dañoo bàyyi seen métier ndax ndax làmb te gis nga làmb fi mu toll nii lan nga leen di wax yow waaw xam nga loolu waxin la te nit ku nekk looy wax lu nekk war nga sóoraale tontu ba maanaam su ne mbër làmb ma yàq sa métier dëgg la am nañu làmb yàq seen métier mais yàlla lu maam ñuy làmb yàq seen métier maam muy ñu ne si atelier plus ay 15 ans plus de 10 ans mënuñu sax déclasser moteur wala mu ñu mënuñu segmenter moteur ñooñu ne làmb yàq seen métier du bëri bëri bëri bëri mais par fois damay jaar fii liggéey lu may liggéey am fi benn tout taw wala tri taw dem kër ga parce que sama métier maa ko jàng sonn si mbëri ndaw yi jàng leen mecce yàqul leen seen entraînement dara ñu ngi jàng métier ndax ëllëg làmb day jeex te ku si nekk war na uuf ay njabootam yor ay njabootam trop ñaan kenn jàng leen métier. am na solo ñu doxal ah. waa aca ñu bi maanaam day peer. Mhm. day peer ko instant yi maanaam filtre bi collier bu ko montel nekkul collier il faut ñu changer collier bi ou benn collier mhm. parce que oto dafa sensible mhm. loo ci xamul rek loolu ci laa mën na am bruit comme tey ji nit ku lekk ay lekk yi bokkul. bu yàggee da ngay si biir bi loolu demee quoi. mais loolu kese la paan ah. ah bi yaa ngi koy wiise. waaw maa ak mbër mais yow est-ce que fàtte woo métier bi est-ce que lamb ji toppaloon ba nga fàtte métier bi. non xam nga métier moom nekkul nekkul looy looy fàtte parce que looy jàngal comme alxuraan rek alxuraan bu xasee nekk sa bopp rek amaana mun nga jàng ay langues yu bëri mais moom doo ko fàtte daal amaana dëgg la dinañ perte repère tuuti tuuti mais bu ci nekk ay deux jours rek kon ni fi mu nekk quoi. te ñu gëj a xëy si. ah xam nga yaa ngi nag yaa <laughs> xam def na ay 4 mois cinq mois yooyu rek loolu la quoi. Aliou nii moom Saint-Antoine nii day suré berceau bi moo nekk suuf oto mooy téye beloti am sekku si daal comme ba saa nga dugg si oto mu dugg si kàmm nga ne kéej kéej kéej kéej am moo dëgërul wala wala wala affaire yi yàqu quoi genre caméra bi instant moom laay xaar nii fu mu suré ko fu mu ko si oto bi. ci oto bi ah. waaw daa yaa xam de. instant da koy nii. pour su paree mu monté ma gis ne bi pare nga ci. yaa ngi ñëwaat ci beneen oto. Mhm. bii lan la paan. instant yii toog filtre bi laa dindi si kaw. Mhm. pour pour fompat ko. Mhm. instant yi bi daa problème. li mu jàpp crémaillère bi. crémaillère bi mooy direction oto bi lu koy yëngal noonu. moo xam am problème mu laay dépanner nii rek loolu la quoi. problème albarkaam bi nii si yoon sax borom boo amoon xaalis nga koy segmenté nga koy segmenté soo amee xaalis da nga maam ñu demee seen xam-xam bopp rek loo xam te liggéey ko liggéey boo xam te ne maanaam mun na dire ay 6 mois 7 mois ba rek mu am xaalis mun déclenché moteur am quoi loolu la fa demee hmm. am boobu mu fom. waaw noonu la gis nga ko métier du bàyyi boromam ndax boo xoolee ay at mu ngi ci làmb ji mu ngi ci leneen mais mu ngi ci métier ba tey jii fàttewu ko yaa ngi gis li mu di wax ci ci ci oto man man daal xale bi doy na waa yëm na ma trop. ate mbër yaa ngi ci kawam de. waaw maa ngi fomp parce que fii moom warul tilim comme maanaam néeg day am salle de bain am salle de bain bi na kurul borom néeg dugg man li mooy salle de bain moteur lii nii benn salte waru cee dugg ndax maam li gën a yàq yàq gaaw moteur maam salte dugg bi ci lay bokk daal moo tax lu ko mécanicien bi sax bëriwul mais am na ñoo xam ne day ñëw jël risque mécanicien liggéey liggéey boo xam ne après liggéey une semaine deux semaines mu yàquwaat. loolu baaxul si mécanicien day yàq réputation quoi. lépp yow daal bu ma la nga mën a dépanner yow. parce que man tamit xam nga dama nekkoon bu xawoon néew doole tuuti nag. Mhm. moo tax yenn bagage di na na mu ko na de. waaw na métti tuuti mais comme que Aliou mm, na aussi sax monsieur na ma dóor xaw a dóor yi yooyu parce dama dem entraînement fajar xaw naa ja xëy si xam nga mu jàpp ma dóor ma loolu mu ko fàtte woon mu si àdduna affaire yooyu. xanaa bi ngay dem entraînement tàgguwoo ko woon. non matin matin bi laa yeewu dem entraînement moo leen xëy si 8 ay midi xaw ma 11 daal dóom dóor yi métti wax dëgg yàlla loolu fàtte ma. loolu rek nga ci jàpp. waaw loolu xaw na marqué. ak euh, ku ma njëkk maanaam combat ma njëkk am sama àdduna mag kuñ bokk garage laa ko bëreel Baye bu nekk Grand Yoff. ma mhm. doon toog di werante nii rek maa laa ko bëree daa ñu dem ba si promoteur buy tëgg combat yi ba mbapat yi ñu dem wax ko. ñoo la woon wala mbapat. mbapat la woon sama premier combat si laa ko la wala. Aliou moo nekkoon si patron man moom ñëpp. mais ñoo tolloon xaw a tolloo woon di si lambo kii naa ko maal dàq bëre mën naa ko maal dàq bëre si leen dem si benn promoteur buy tëgg ay mbapat ma ne ko waaw maa kii di bëgg bëre grand combat affaire yooyu mu fay ñu 750 la ñu fay. 750. franc CFA mm-hmm. la ñuy fay. ma grand combat de la ñu fay ma daan ko. loolu la quoi après moom si laa jógee foofu nag. 750 yi bi nga ko encaissé loo loo ci def. <laughs> guddi la jeex damaa ji niñ rek meew xam nga fekk sama tamit dafa dafa bëggoon kii quoi genre genre petit cola ay guddi yooyu xam nga ma jënd ko si après lu après ça passe quoi après si lañ commencé bëri daal nga xam. non juróom kay la gëj a xëy bi ah ah bàyyi <laughs> <laughs> waaw. est-ce que fa parce que jëli bee la yoon wala. jëli bee ree nag. jëli bee ree nag bilaay jëli maa nii waat tam sama grand fi nekkoon loppi moom it la woon mais dafa nekkoon grand bu baax si man dafa mën jàppale si lu bëri si wàllu lekk yi affaire yooyu. Ibou moom moom moom moo nekk suñu patron ñëpp moom moom moom Ousseynou Ousseynou maanaam mooy ma ko atelier bi moom it di nga ko si di wax amaana moo jàngal Aliou mi métier xam nga amaana Aliou mi moom moom moo jàngal métier mag moom it ñaan rek garage am bii maam lépp lu mu séntu yàlla na ko yàlla may moom Aliou Mia parce que ni ku baax lañ amaana mi moom daa mun kii rek mais xaw naa tribal tuuti nag. <laughs> Ah, mais xam ma laajte ko tuuti rek léegi Aliou parce que ñun dañoo dégg ne Ndongo Lo xale bu ësëm la dafa tribal woon fii Grand Médine yow loolu noonu ñu bëggoon la cee laaj nga wax ñu tuuti sa xalaat. waaw loolu comme lu mu lay waxaat dooli waxaat rek moom moom wax dëgg yàlla xam nga ñi moom soo nekkee sax si yoon sax di def li nga xamante ne nii xam nga. yonent bi bëgg ko yàlla bëgg ko tamit il faut tamit nit ñi dugal la fa xam fii lu bon rek nga fi mën a def nit ñi euh, weer la mais boo defee lu baax nit ñi duñ ko wax. waaw kon moom daal wax dëgg yàlla amul benn problème moom tribul bi man gisuma ko quoi. da doon bàyyi bi dem topp sareet wala dem la nga apprenti super affaire yooyu. yooyu yooyu yëpp boo déggee sànq ma wax la ne la euh, fii ku fi nekk dañ lay jàngal métier dañ lay yar loolu bokk na ci yooyu yëpp bu mu amee tamit ñu ñoo man maa ko dindi ci moom. parce que moo am na benn morom bu fi nekk moo ko Omar Dia moom it mu ci làmb gi sax. waaw moom comme ni mu doon def nii rek moom noonu la doon def doon nekk ci saretu mais ba ma papam gisee ni ma sama doom ji su xamoon su sañoon nga yoroon ma parce que doy nga moo tax dégg naa xale yi yii di yëpp saa ñëwee ci yow rek daal li bëgg ñun dinañ ko am man ko bu yàlla defee tamit suñuy rab jiboo yàlla baax na daal mun naa sopp ci lu bari mais ba mu ñëwee tamit ah, wax dëgg yàlla loolu tamit

non bëri histoire gi sax gars dañuy wax nii rek mais man mi wax ak yow man gisuma ko ci moom li ma la mën a waatal daal mooy xale bu xale bu yaru la xale bu jub la musuma ko yónni mu am ci moom lu ma naqari wala mu defal ma loo xamante ni ba ma ñëwee mus naa ci am ak moom problème benn yoon rek laa laa ko mos a jotee moom fi ma dóor ko fi mooy affaire boobu mu la expliqué affaire u entraînement boobu te loolu ñàkk woon parce que entraînement a tàggu mais ba mu ñëwee boole ci nag benn boo xam ne suba boole ko ci nag ma nag lépp tuuru mais après bañ ci waxtaanee nag après man dama ko ko nangul waaw dóor yu moom dóor yu métti na trop moom waaw mais après nag dama ko mu da nga ko ciy jàppale rek mu toll pare na wala pare instant pare gu instant toll nii dañoo yóbbu classe bi dañoo yóbbu fee eh, kii bi pour raxas ko ko parce que gen bi ñu changer ko ko quoi combat nga fa na. laa ilaaha illallaah. Nome wala tournoi. Nome. Nome na ko 4. waaw Nome la am de. tournoi mënu ma moom. mais mais lu mu mujjee jàpp. 117 la woon. 117 combat waaw lu mu mujjee jàpp waaw tournoi. nga daan ci ñan yan yan yoo xam te ñu ngi leen di dégg tey ci arène bi. Euh, daan naa si sama doom day Dame Sène ah daan daan si Jileen daan si Baaratin daan si kan waaw ah, ñu si daan bëri de ñu si daan bëri na de ah mais xam ngay def ba pare xam nga fàtte quoi mais jàpp naa ñu ma daan nag ak ah, ñu ma daan moom jàpp naa leen. daan. Franc daan na ma fi naan. fan la woon boobu. la woon. mbar boobu laa daan dam seen. mu daan na fi par kàddaa Franc daan na ma. ak kan. ak euh, Franc ci mbër siiw laax de. Mm-hmm. amaana Franc laa sant daan na ma quoi. Ah? ban instant nga bëree mbapat boo xamante ne dootoo ko fàtte yow. mbapat boo xam ne du ma ko fàtte. ñaar mbapat la ñaar. ñaar la yoo xam ne du ko fàtte sama àdduna sama life. muy ban ak ban. mbapat bi nga xam ne dañoo demoon Ngunjaan di buntu Ngunjaan di bëre. ma jël tournoi boobu maag sama doom day jigo Aziz ñoo fa doon bëre ah, mu ñaan ku ne xam ne mel ñu bëre fa mais premier jour ñu dem bëre fa jël tournoi bi ñu duggaat ci benn dëkk bi paa bi ne ma ndongo ma ne ko dëkk bi. lan moo taxoon wax la xaw ma mag xaw mag moom du yàlla mais yàgg na yàlla ma ne jugo kañ wàññeeku parce que paa bi wax doy na waat te instant tonne mooy loolu kañ dem ma dem préparé ko déwén. bu ma ñëwaatee dëkk bu paa bi doon tere. fa laa jubali mais bi la da ngaa dem da ngaa dem parce que makku tax ma makku bi waxee dara rek yaa quelque chose ci laa wàññeeku ni bi Dakar préparé waa tournoi déwén bi bu ma ñëwee nag bu mu tere ci laa xuus tout droit. na la. gisaat ma parce que ma dugg pare naa. ma dugg pare naa quoi xam naa ne pare naa amaana na nekk genre wàll yi nga xam ne bëgguñ sa gàcca ba dem pour am gàcca rek dañ maanaam pour xamal la ne fi ngay dem baaxul boo nekkee xare bu dëgër bopp nag mun nga dem continuer après safar moo la ciy fekk moo wàññeeku dem préparer ko jubal dëkk ba tout droit sa benn gànnaar mu ngi yóbbu sax Tafa moom it dafa gaañu fan yële passé xam ma dem ànd ak man jigo Gaynde Waalo ak sama ñaari gànnaar yi nekk Thiès Côte ak yéen ñaari xarit passe aller lañ yoroon ñëpp ak xarañ. jugo ñëw ne ma ndongo ma ne ko ndam mu ne ma tournoi boo ko jëlul de duñ paas ñibbi te mu ngi si biir ngu ñaan man rek presque ay neuf personnes boobu laay goote bu cees ma doon bëree poids bi may bëre poids léger. kon bi nga fekk nga fa ay champion yu mag. waaw waaw laa dem di bindu mais bind na poids lourd gaa mi non non yow booy ma too ngay bindu ma ko bàyyi bindu ma luur mu ma léger ngay bindu ma bindu léger. lan taxoon wax la lool. amaa nu ma solo yore ak sama jëmm ji noonu xam nga ñu dem si làmb ji premier tour bi ñu boole ma ak sama xarit mu àndaloon ci làmb ji mooy ma jàll. ma bëree pare taxaw gaa yi yëpp arrêté te gii arrêté woy arrêté lépp ñu ne Ndongo mi nekkul poids léger poids la te baaratin bu ma daanoon man bi nga xam ne maa ko waxoon amateur yi ko doon wax. làmb wala làmb ji boobu ñoom ñoom ñoom Mourou ñu ngi fa woon ak ñoom Malick Thiandou ngi fa woon léegi nag. loolu ban année la. ba nga bëri béy war a une semaine. ma dem fa jóge dem amuñu paas si laa daan foofu Déthié Ndiaye Déthié Ndiaye boo ko déggee maanaam kooku mosu fa daanoo ma jël tournoi bi laay goote itam jël poids lourd bi ma jël micro bi ne laay goote tegal li nga jël ma teg li ma jël ñu bëri ko yóbbu. yow lan nga jëloon moom lan nga jëloon. man jël naa poids léger bi ma am 100000 moom am 150000 ma ne ko tegal li nga jël ma teg li ma jël ñu bëri ko daan jël ko mu bañ. Mourante bañ boobu maanaam Mourante moo ko andi woon. mag moo bañoon. waaw mag yi moo boobu bokkoon mu ci lu ma bu baax a baax a baax ak tournant bu ñu demoon cité avion tournant boobu. non léegi nañ taxaw léegi bi nga jëlee 100000 yi yi la ne woon instant bi amuñu paas retour noonu nan lañ ko dundee. waaw si lañ paasee ñëw ñoom mu jël lépp takk si loxo yàlla amaana yàlla maanaam amaana mbooloo da ciy tànn nit boo xam te ji moom lay rus am na ñoo xam ne billaahi wallaahi duñ fekkee gàcca am nañ ñu ko yàlla may am nañ ñoo xam ne ñu fekkee gàcce gàcce fu ñu am rek ñoom duñ fa taxawaalu loolu la quoi. léegi beneen tournant bi beneen papat bi. beneen tournant bi fee ci avion la woon maag duur moteur ñu waroon daje dem final mais boobu gars yi xeex nañu man ak moom amaane boobu sax la ñu gisante ma ne moom. ñan ñoo leen xeexoon boobu. làmb ji euh, c'est la daan dem final moom daan dem final te man dem final bi ñu waroon daje dem final man ak moom mbaat boobu gars yi bëri ñu foon mbaam bi jeex 4 heures du matin. maanaam yow da ngaa yóbbuwul woon ay gars yu bëri daal àndoon ak gang bu bëri. ok gang man fu ma dem sama gang yaa ngi fa man moom damaa ragal du ma ànd man kese quoi loolu moo tax xam nga ñu dem nag léegi euh, Dour Moteur ma ko boy man ne ñu war a jël làmb ji non ko ñoo koy jël. aw ma joxe Sultan bu yoof mu daan ma moom jox ko benn mbër dina il Dakar mu daan ko léegi ñu doxee si avion ba Grand Médine guddi googu nag sori si man jàgg man trop. maanaam jëleewu leen fa dara daal. waaw jëleewu fa dara. ngeen dox waaw ñu dox ci avion ba Grand Médine ma sonn ci guddi gi de. billaahi wallaahi wa taalaahi ma déggaat lamb ginnaaw Thiès. Jobaas ci guddi gi ma waroon takk jóg sama cimukaay ne bul dem da ngaa sonn boo demee dafa am dara parce que yaram daa fatigué tournoi daal bokk na tournoi yi marqué sama àdduna. doo ko fàtte doo ko fàtte quoi wax dëgg yàlla. mais ban nga bëri nag coow li topp la ndongolo bi ndongolo bi. Grand F Grand Yoff bëri naa fa 2013 2009 ba 2013 daanu ma fa parce que tey jii nii dafa amoon benn mbër bu ñu wax ndongo daara doon ñëw Grand Yoff di ko toj daan Grand Yoff lu bëri mosu fa daanu benn jour mu bokk benn tournant yàlla dogal mu bokk ci mu dëkkul Grand Yoff de ci lañ bëri bëri bëri bëri jigéen ma ndongo ma ko naam mais xam ne kii nga dayee final mën ko kii maa ko mën xam waa Grand Yoff tamit maam ngañu mel mais am loo xam ne dafa nañ ko si combat yooyu noonu seen jigéen ñi mais yooyu yooyu. muy lan mu lan. yooyu day yàqal mbër quoi yooyu day yàqal mbër. parce que. aco ah, liggéey waaw waaw comme li nga sol nii rek. comme comme li nga sol nii rek. may bëre seen mbër benn booy sol ko. comprendre nga. toog toogaay saaga na quoi. xam nga bët dafa sob <laughs> xam nga bët dafa sob mun daal maay bëree bëree bëree man xamul ma sigiloo ma sigi rek waaw jàkkaar ak lu garaaw li nga xamante ne bii maanaam mën ma ko nettali ci télé comprendre nga léegi booy plaqué ma ma plaqué ma daw fël ko. Ah, ok dafa ndànk ma wax maanaam benn xale bu jigéen toog. non xale bu jigéen bi boobu yow yaa ngi ci maa ci maa ci maa ci grand F tournoi bi benn xale bu jigéen comme li nga sol la sol nii rek ñu gàtt nii xam nga toog Pablo mu ngi koy uuf uuf Pablo rek oh, Maguette Thiawara mu ngi ko sol ah. toog ñu jàkkaarloo ni xam nga ñu bëri may bëreeg booy di bëreeg boobu di bëreeg booy bi damaa jékki-jékki rek samay bët dina yar ci moom ak xale bu jigéen mu toogee ak mu sàgganoo. ci biir bëre bi noonu ngay bëree. man damay bëri ci bëre bi di waxtaanee sama cumukaay nga naan billaay wallaay taalaay. alors grand na di ndongolo. damay bëri ci biir bëre bi di waxtaanee sama cumukaay. barke alxuraanu karim après nag booyu plaque moment mu koy xool noonu booyu plaqué mi rek ma turé def nii mu ne i lu may xoolee nii léegi nag boobu nag léegi boobu nag léegi mbaram taxawoon ko ginnaaw comprendre nga. bët dafa soog. mais tax na combat boobu fekk jeexul woon de yéen a ngi woon ci biir combat bi ba ok. Mhm. jigo ma nii noo ngee saaga ma ne bul yàq suñu combat yow. abar ci biir ci biir ñëwaat bi maa ngi xaar man xale bu jigéen bi seytaane la wala kii mu demee nii gaañ. est-ce que boobu mënoo woon a téye sa bët tamit ndongo. bët dafa soog. woo ci woon bi ngay bëree yàgg gis booy bi moom mooy moo xam rek. te bët daal xam nga maanaam loo bett lay mën man xoolaatuma ko mais xool naa ko beneen mais xoolaatuma ko daal. benn yoon nga ko xool. waaw boobu maa ngi bët Tidiane Faye laa doon bëreel boobu ko léegi maa ngi ndongo daal ki nga xam ne mosul daan ko naa fi daje foofu dañoo bëree man avant man moom dañoo avant avant final bi maam ci ginnaaw làmb ji laa ko fekk ne ko tey loo mën a si àdduna ma parce que am na mbir yoo xam ne balaa nga bëri ak ñoom il faut nga jaar ñoom fenn fi leen daal jaay pour seen combat mën a yomb comprendre kooku laa mbot mu am 30 secondes si kaw bi si si kaw air bi. nga mbot ko mu la mën a ma songee baaxul tamit dafa song par mu ma gën ko ñooxu mbër mbër mu ngeen mbër tey jii mu song gën ko gën ko ñooxu boo ko ñooxoo léegi sooy boneewu moom day beeneewu boo ko téye fii bu nga am 30 secondes si kaw air loolu bokkoon tournoi mu marqué grand fu ma neex mbooloo bi topp ma ma yóbbu saako ceeb bi. Ah? Mhm. léegi na ci biir loolu noonu Ndongo ci biir làmb ji. arène bi yow kañ nga ci ñëw ban at nga ci nga ci ñëw. arène bi si arène bi bëri bëri door bi mhm. maa ngi si ñëw le 11 janvier 2013. 2013 waaw jour combat King Kong Sokosim Thiat ak Laye Bey mhm. waaw. nga am ñaata combat ci arène waaw 2013 on a deux combats. waaw 2014 ma am si quatre premier combat nga bëre ko kan.